ziar naa la dellu ziar. waaw keroog def na jaloore waaw di féliciter suñu rakk ji. di lancer appel nag lii waa Pikine laa koy wax ñoom seen bopp waa Pikine ñun dañoo sonn di defar fi dama bëggati ñun bu ñu bañee ñun ñu seetaan bu ñu xoolete mbaru xuru naar wala mbaru tali bu mag bu nekkee da ngay porter drapeau Pikine na la ñëpp ñëw taxaw loolu mooy dëgg. man nag dama sonn ci defar bi xoolal kii Pikine lay drapeau Pikine lay représenté feu rouge ana pikin bi c'est pas normal lii du yoon. même korok gis nañ bisu Tyson bi. lii dama ne la dudul yoon nañu ñëpp di ñëw suñu bëggee ñu leen di ñëwal nañuy ñëw ci combat Pikine yi parce que tey ñun ñu bëri ñu ngi ciy dagg suñu tànk. parce tey du ñu gis suñu góom di ko feeñal loolu suñu défaite la ñun Pikine mais nag affaire yi mu ngi bëgg lo ëpp loxo mbëru Pikine boo leen déggatee benn mbëru Pikine mu ngi bëre non na ngeen ñëw taxaw ko loolu mooy dëgg ñun bu ñu bëggee ñuy sonn seen i bés man ñoom ñëpp laa yemale dégg nga désormais nag yenn mbëru Pikine yi bu ñu ñëwatul non ñun dañuy jël suñu décision bopp dañuy toog suñu kër parce que du kenn ku ñu si jox tàngal mante fres dañuy waxante dëgg na benn mbër génn ne moo ma jox tàngal mante ma amul kon yenn bés yi ñoom ñëpp laa dévier ñoom ñëpp parce que dañuy sonn seen bésa ah, te utuñu si ñaar dërëm kon nag ñii li ñuy kaas ñun dañ leen koy nangul dañuy am bés doo gis seen open press doo gis seen làmb te loolu dafa ñaaw dafa ñaaw ñun ñëpp lañu booloo te ñun bu ñu booloowee kenn mënuñu billaahi wal kitaabi na mbëru Pikine di ñëw ci combat wu mbëru Pikine yi dégg nga kii mu ngi nii foo ruusa ngi nii écurie taay si nga wax ma fi benn écurie bu ko rax fii gisu amul te loolu du yoon danul yoon dam koy wax te dee loolu lii du yoon na mbëru Pikine di ñëw di taxawu ci mbëru Pikine yi man loolu laa am li may wax di wax ni tey waa rent DKR ñëw nañu décorosé nañu combat bu rëy voilà am na benn mbër bu ñu sanctionné woon muy mobile 2 amal nañ ko adversaire mais adversaire bi comme tënkoogul dañ ciy def code maa ngi wax Alain Tyson 2 ngi nii ah. pare na pour bëre ah, ah. waaw Alain ak Jimbo man bëgg naa tey si écurie Eumeu Sène mu jël si benn mbër Pikine mu jël si benn mbër mais mobile 2 wax dëgg yàlla déggoo nañoo moom tey daan biñ ko daanoon maa ngi ñaan CNG wàccee ko ko man frère am jéggal naa ko mais mais mais loolu wóor nag dëgg mbër moo xam ne dañ koo sansone loolu wóor na si sanctionné si ñun la dépendre parce que suñu avance la yor ñun la yoreel avance tant joxuñu ko du bëreeg benn mbër léegi nag ay kilifam woon nañ ñu ñun jël nañ yëpp teg ci suuf nañu ñëw bëreel coow li jeex te ñëw juboo nañoo ak kaddu te mbër bu mag bu nekk géejawaay lay bëreel. mbër bu mag bu nekk géejawaay. waaw mais mais ëllëgu Tyson 2 ñu gis Tyson 2 ak jaloore bi mu def ci lam mu gis yoonam ni mu méttee Tyson 2. yoonam méttiwul mbër yee koy moytu mbër yi ñoo koy moytu dañoo xam ne fii nooyul guy gi suma frère la suma rakk la ñoom bi ñuy bëre depuis boobu Tyson doom ngi écrit Fallaye depuis dix ans kon tey mu ngi def ay ay ay ay preuve am na ko jox sa na ko ñëw ñu leeral ko jox ko revanche am nañu génn ñëw bëre ak ñoom ku ci bëgg bëre ak Eumeu Sène ñëwal jaar fii képp ku ci bëgg am ak seen Sène uh-huh. ma Sène may la loxo ñëwal jaar fii mooy porte porte baa ngi ñëwal laal ko soo ko jëlee ba pare loo ci am ma seen may la loxo loolu mooy wax ji waaw booy ñaa ngi nii bi mu bëggee bëre ak Balla daa dem dal ci Sa Thiès Balla Gaye jël ko Eumeu Sène a ñoo la ñoom dañoo tege ne Eumeu Sène benn gâteau la nañu ñëw jaar fii suñu jaaree fii ba pare Eumeu Sène may leen loxo loolu mooy dëgg